Bruno daf ko dajale du ni dafa génn àdduna ku nekk di wax déedéet kenn ku nekk ci ñun man na wax li mu dund ak moom man am na ñoo nga xam dégg naa ñoo ma gën a xam fuuf Bruno mais nag yàlla dogal na diir bi ñu nekk man ak moom dañu jegeñante woon lool lool lool lool lool ba sax bi ñu jógee présidence tarewul man may continuer di ko fréquenter léeg-léeg ma woo ko léeg-léeg ma dem këram seeti ko ñu diisoo ci ay affaires yu bare bëri ba yàggul dara am benn waaye bu wax ci Facebook ni Bruno nañ ko rendre hommage bala muy génn àdduna ma tontu kooku ci Facebook ba jëlanteeg moom ay numéro ba doon ci def ay jéego pour bëgg naka lañ mënoon def pour rendre ko hommage ci dundam far yàlla indi lii donc ni ma ko wax rek Bruno dafa am lu ma jàpp ci moom. Euh, saa bu mësaan ñëw ci moom présidence day daal di xaqtaay reetaat ni ma sacré Serigne Mbacké su ma nekk mais excellence man dam am lu ma bëgg mun ma di tout ce que toi tu sais que je benn jour en fait du benn jour souvent dañ doon toog man ak moom ak madame Mbaye assistante président Wade mu naan en Serigne Mbacké bu ñëwee il va droit au but c'est possible ok c'est pas possible génn na ci il va faire autre chose donc on avait d'excellentes relations muy vraiment un véritable commis de l'État ca li may jeexale mooy témoignage boo nga xam madame Wade moo ko def ci moom bien après ñu quitté présidence ñu toog benn jour fànn ñuy wax ba yàgg rek munuma ni ma et je sais que waxuñu woon sax mbiru mu ni ma mais toi tu connais bien Bruno man ko oui je le connais mu ni ma voilà un grand commis de l'État voilà un donc loolu ñëpp xam ci moom ñu ñaan yàlla xare ko àjjana di ko jaale ay mbokkam li may jeexale ci moom aussi mooy pour la première fois jàpp naa ni nit génn na àdduna ñëpp bokk benn xalaat ci moom te jamono bi mu génnee àdduna muy Sénégal mel ni dafa am ay bari ay wax yu sew sew ndax ñu ngi jëm ci élection te mu wóor ma ne bu ñu demee fañ koy robe ñëpp fay daje tous les partis politiques tarixe yëpp diine yëpp ñoo fay daje kon tey Bruno dafa nekk benn symbole boo nga xam ni ñun am na lu ñu ci war a jàng li ñu ci war a jàng mooy xam ni benn bopp kenn du ko xar réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk.